mën naa mën naa ne. ni ngay gisee Ousmane Sonko jàpp nga ni ku mën a taxaw la ñaan grâce ci euh, ci président Macky Sall moom it mu accordel ko fi yëf yi toll nii. <laughs> en dëkk bi dëkku jàmm la dëkku dialogue la dëkku waxtaan la lenn rek lañu bëgg noyyi. ah loolu la bëgg. demander grâce su fekkee daf lay permettre nga am la nga bëgg. Hmm. man gisuma ci benn sikk sàkk joxe grâce bu fekkee ni day dalal réew gisuma ci sikk sàkk ku ci nekk nag yaay seet na ngay defee hmm. yëf yi moom du du lii de nee naa leen bi may euh, bi may dem ci dialogue bi hmm. nee naa leen par exemple violence doole yàq ak doole gënaluma bëgguma ko dama ni ak xel lu nekk mën nañ ko régler ak waxtaan lu nekk mën nañ ko régler du ñu dóorante du ñu tuurante deret mais dinañu wax ba tënk dara avancer Sénégal nag dafa nekk période boo xam ni hmm. nit ñi dañu war a avancer waruñu reculer waruñu marquer le pas dañuy avancer ku ci nekk hmm. li nga bëgg mooy Sénégal jëm ca kanam kon ba ku ci nekk na ci bay waaram ba Sénégal. jëm ci kanam ñi ngay dégg jamono ji ñu leen di tudd euh, ci njëlbeen bi maa ngi la koy laaj mais xëy na sori woo ci yegg si ñi ñuy présenté ah boo waxee candidature fi mu ne nii 2024 tur yi génn ginnaaw ñoom Ousmane Sonko Karim Wade. Khalifa Sall Bougane ay docteur Abdourahmane Diouf ñoom ngay dégg ay Déthié ainsi de suite euh, peut-être Aminata Touré dinañ koy tudd aussi Euh, ni ñu koy présenter noonu en tout cas ci presse bi jàpp ne ñii moom mën nañoo gis nii daal potentiel adversaire lañu yoo xam ne mën nañoo uutu président Macky Sall euh, noonu ñu koy defee da nga jàpp ni kan moo koy def. ni ñu koy présenter ci presse bi. ah la presse ngay wax. ah. ah waaw loo ma bëgg laaj nga ni. non euh, maanaam le fait que ni ñu koy présenter nii di tudd diw ñii ñoo ci gën a jekk wala ñii ñoo ci gën a profilage boobu ñuy def noonu souvent. duñ ci gis ñu mel ni yéen et pourtant ci passé récent xam nañ ni ci présidentielle 2012 bokkoon nga te ci ci ci ci. gën a jekk nag li tubaab di wax c'est relatif. ah ci xel ku nekk la. mën na jekk ci kii jekk ci kële du jekk ci kee ak ka ca ginnaaw. jekk dafa nekk loo xam ni. Hmm. dafa relatif. boo ma mënoon a may sax mot bi en wolof. Hmm. maanaam euh, kenn mënu koo wax ni ñépp trouvé nañu dara mu jekk kon boog yéen presse bi yéen c'est vrai. Hmm. war ngeen a moytu loolu. parce que ah, dafa mel na bu ngeen di def loolu. Hmm. dafa mel na da ngeen di jël ay bët walla ay lunettes di ko teg ci kalamu nit ñi. naan leen hmm. xoolee leen ni baaxul. xam nga impression boobu ngeen am que ne noonu la xam nga droit xam nga droit politique maanaam tànn sa njiit dafa bokk ci ak ak yelleefu doomu aadama suñu boroom moo ko jox nit nit ki war koo mën a doxal na mu ko gisee na mu ko yégee mais bu fekkee ni yéen hmm. da ngeen yore seen micro di feeñ ci tele di wax naan nit ñi nii la yéen ngeen leen di tooñ yéen a ngi tooñ nit ñi ndax da leen di wutal ay bët wutal leen ay lunettes naan leen xool leen di loolu tooñ la bàyyi leen nit ñi ñu xool seet ñan ñoo dal seen xel ñu jël leen tànn leen nii ngeen defoon. Hmm. ci li ñuy wax bipolarisation. j'espère que loolu génne ngeen ko seen bopp. te ñun ñoo journaliste yee ko def ñoom ñooy jékki-jékki rek ne bii ponkal la ak bële dañ leen yafal leen nag yafal leen dooleel leen nag ñuy kur feñante ñuy dóorante ci kalamu askan bi attention ci loolu parce que hmm. ñooñu ngeen di teg li ñu représenté sax en fait ci électorat walla ci population bi barewuñu ña ëpp ñu nga ca seeni kër ña ëpp ñu nga ca tool ya ñu nga ca marché ba toppatoowu ñu ne kii bii ponkal wala bële ponkal kon boog nañu sóoraale hmm. di leen di leen jël en compte moo tax ñun hmm. troisième voie la ñu wax ñun bokkuñu beneen bunt bu bokk te beneen bunt ñun du bii ñaar ñii kur fañante hmm. du du ñun ñun ñette ñette kër ga kenn déggu leen pourtant ñu ngay xalaat ñu ngay am seen bëgg-bëgg ñun ñooñu ñoo ñu intéressé. ci professeur ñooñu catégorie boobu lañ bokk. ñooñu ñooy voté pour ñaar ñii ngay tudd ah parce que depuis boobu ba léegi ñaar ñii ñoo fi nekk ñoo occupé yenn station yi bu ñu demee élection ñoom la ñuy gën a jox bopp. <laughs> ñooy kon di doxal. yéen yéen yéen a ko liggéey yéen journalistes yi. ah oui. nee naa leen yéenay jox ay bët ak ay lunettes population bi naan leen xool leen fii walla fële bu leen xool feneen foofu ngeen di tooñee nag gis nga. day day day indi day indi waaye vous donnez la parole à tout mais après yéen da ngeen di def seen sélection euh, seen sélection naturelle yeen naka ngeen ko gisee seen bët li ngeen gis pour yéen looloo baax te pourtant barewu leen mais da ngeen am pouvoir. da ngeen am force dañuy analyser di commenter di joxe parce que yéen. ay waxal askan wi mais bu ngeen di waxal askan wi ngir yàlla hmm. seet lan la askan wi xalaat aussi askan wi xalaatul rek ni bii ponkal ak bële rek janoo di kurfeñante ah ñaari mbër yi fañante ñoom rek la ñu mën a ñoo la mën a euh, àndal hmm. am na ñeneen ñoo xam ñu ngi leen di jàppale ah, di jàppale ñooñu nga xam ñu nga ca kër yaak tool yaak yooyu waxuñu dara te ñooñu xëy na du ngeen leen xoromal foofu ah. ngeen juumee nag loolu il faut ngeen changer ko il faut que ngeen wan population bi am na ay ay ay ay variété yu bare variété yu bare du ñaari ponkal yuy doorante rek ku ci nekk ne maa la ëpp doole du ñooñu may leen population bi ñu mën a tànn ñooñu ñana parce que wax naa la ni presse bi li muy def rôle am mooy jox ñëpp kàddu presse bi feeñal na ku ne ku ñu xamuloon démb ak barki démb ñu ñëw. du grâce ay idéem projet mag lu mu mënti doon mu ñëw euh, sénégalais yi ne waaw bismillah. d'accord euh, est-ce que jàppoo ni. Euh, waa troisième voie daal. mais mais yëngu yëngu bu leen mun a may ngeen yëgg ci niveau boobu daal. mais daal nga bëgg a xëy rek daal ñu koy sànni. ma ni nee nga ñëpp ngeen di woo professeur xool ñëpp ngeen di woo. ñëpp mais xoromal leen ñëpp. xorom si mooy lan. te bàyyi leen. Hmm. ca njëlbeen rek. ngeen ni nit ñi xool leen fii xool leen fële jeex na. la mooy xool leen fii expliquer ñu yan yan ci ay exemple concret pour ñu mën a xam li ngay wax xool leen fii xool leen fële. kii la da li ngeen di wax par exemple bu hmm. fekkee ne ay élection dafa am da naan kii la gis ak kii jël leen fii ak fii ñoom ñaar nag ku ci nekk nag. Euh, euh, ne gën a géex gën a euh, gën a dooleel boppam gën a nu ma koy waxee sax gën a duufal boppam ñuy nekk nag di koñante di di xeex ak di xuloo alors que am na ñeneen ñoo xam ne ñoo gën a mën a toppatoo problème askan wi foofu laa la bëgg waxee. Hmm. bu fekkee da ngeen dugal ci xelu askan wi parce que yéen presse pouvoir ngeen. te seen rôle dafa important yéen dangeen am rôle d'information rôle de communication yéen da ngeen di dugg ci xelu nit ñi ak ci xolu nit ñi bu ngeen di wax moo tax ngeen war a def ndànk bañ leen a di joxoñ naan leen fii la wala fële may leen tuuti askan wi hmm. xalaatukaay ak xoolu ak xoolukaay xalaatukaay ak xoolukaay bu leen kii toujours ci maandu nit ñi loolu laa remarqué da ngay leen di wax ni lii la ñii la ah c'est pas autrement c'est pas autre ñaar ñii la subaak ngoon guddeeg bëccëg ba nit ñi sonn ba nit ñi tàyyi ba nga xam ne nit ñi doot ñu am espoir arrêté leen loolu fexe leen ba won sénégalais yi am na fi ñu bare en dehors de ñu ngeen di présenté ñoo xam ne mënal nañu dara askan wi day leen ko def. appesantir ci waaye ñun ci loolu la ñu ne ah maintenant rek les journalistes ah. sont libres ah am nañ liberté wu en dehors. Ah. de seen bàyyi leen di wax vous êtes libre. li ma bëgg wax mooy ni xam nga les faits moom kenn mënu ko voilà kenn mënu ko soppi. Mhm. maintenant nag am nañ ñoom possibilité ci yeneen bunt yu ñu am def seen commentaire seen analyse. mani et tout mani maintenant nag du tee ñoom dinañ la dégg pouvoir ngeen nangul yow sa xalaat. Mhm. xëy na waaw euh, mais euh, Pape vous êtes un pouvoir yéen dañuy wax exécutif législatif judiciaire mais yéen pouvoir ngeen est-ce que du ngeen le quatrième pouvoir xam nga lu tax mais yéen ay wax ak askan wi yéen yéen a yore organe yi nga xam ni askan yi subaa ngoon guddeeg bëccëg yéen lay déglu yéen lay xool su fekkee ni nag da ngeen jël ay lunettes jox ko askan wi ne xoolee leen nii mais loolu mooy nekk problème foofu rek laay waxee. d'accord mais waaw. à loolu yëpp yaa ngi naan do bii doo bi troisième fois nga woote bu léegi mais euh, lan la deux mille vingt quatre aussi da ngay da nga ciy sóobu. Euh, dina dinaa <laughs> dina dinaa ci wax. ah du yàgg soobee yàlla dinaa ci wax. ah ñu ngi xaar sa déclaration pour xam. incha allah rabbi incha allah ah. incha allah rabbi. ah bi ngay wax kaar leneen de euh, yaa ngi ko doon wax di boobu ba léegi lan nga jàpp ni xëy na moo tax ba leneen boobu ngay proposer sénégalais ba tey bon am na ñu ko adopté certes mais du majorité bi lan moo koy expliquer ak nan nga gisee xëy na ci lu ñu jëm ni mooy doon déterminant ci yenn ñi woote woo. xam nga lu ko tax ñetti voix yooyu. lu ko tax mooy li ma la doon wax léegi nga. xaw a ah, mer boobu ba. yéen rek la. <laughs> déedéet <laughs> rek a tax. nit ñi encore une fois dañuy douter duñu xam parce que yéen yéen a leen di wax ni lii la ak lële. mais professeur xam nañ la ci espace public. non xam nañ ma bien entendu xam nañ ma mais li ma la bëgg wax mooy yéen presse bi yéen a conditionné population yi yéen leen wax ni kii la ak kii conditionnement boobu rek laay wax man de. Hmm. évidemment nit ñi xam nañ ñu. parce que boo jàngalee lu mat quarante ans. université pratiquement kër gu nekk am na koo fa jàngal kilifa presque yëpp jàngal nga leen dugal xam-xam ci ñoom. Hmm. mais dañ lay xam c'est normal et en dehors de ça. li ma def dans la société civile. ak yu demee noonu dañ may xam mais dama bëgg yéen ngeen bañ a rek jël ay lunettes takkal ko nit ñi <laughs> naan leen xool leen fii xool leen fële. day tax ba duñu xool feneen. Hmm. mais li ma bëgg wax mooy. oui man 2012. déjà. waaw à quelques mois des élections hmm. ci laa créé benn mouvement citoyen car leneen convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines xam nga lu taxoon ma def ko hmm. dama ni mais ñun dañuy seetaan réew mi ak askan yu ba kañ ku ci nekk yaa ngi lijjanti sa mbir te fa ñuy dogalee. Hmm. mu gën a kawe nekkoo fa. ma ñëw gis ni ay élection day am dans quelques mois ma ni waa ñan ak ñan ñooy candidat ñu ne ma monsieur Tan monsieur Tan monsieur Tan monsieur Tan ma ni c'est bien suñu càmmiñ yi waaye jigéen yaa ngi fi. Hmm. te jigéen yi am na lu leen yàlla may. loo xam ne kenn waru ko négliger. mooy ñun ay yaay booy lañu ak yërmande d'abord yaay booy dafa am yërmande saa il faut le reconnaître yaay du gis doomam muy torox mu toog gis nga ni nii même man nii dinay toog euh, bàyyi ñu ñëpp lekk ma soog a lekk. Hmm. parce que dama naan na ñëpp bu ñëpp kontaanee ci lekk gi man bu ma lekkee sax dina rees loolu mooy yaay booy ak yërmande ak wekk ak xali xalaat famille mais jigéen ñi tey li ñuy wax le leadership yàlla may na leen xam-xam bi mu jóge fu nekk na xam-xam bi fu nekk la mën a jóge hmm. yàlla may na leen mën-mën bi macha allah li ñuy def mucc ayub yàlla may na leen jikko yi le valeurs. Hmm. jikko yu baax te yaay moo wara surtout dugal jikko yu baax ci ay doomam. ba pare yaay euh, euh, jigéen ñi tey yàlla may na leen li ñuy wax l'engagement bëgg nañu nee nañu ñoom bëgguñu seetaan seeni famille nee nañu ñoom bëgguñu seetaan seen askan kon boog am nañu engagement pour liggéeyal famille yi ak askan wi n'est-ce pas. oui ba pare am nañu léegi l'audace man loolu moom la mooy sama mbégte 2012 bi ma nekkee candidate. audace. l'audace parce que benn jigéen ñemewul woon dugg pour ñu defal la ñuy ay bulletin de vote dugal ko ca urne ba mosu woon am ci laa ni mais jigéen ñi pourquoi duñ ko am ca laa dem présenté wu ak sama sama sœur Juma Jaxate oui Juma Jaxate d'ailleurs voilà donc euh, dama ci kontaan tey hmm. parce que wóor na ma ni ñu bare dinañu présenté wu ci jigéen yaakaar na ah, ah en tout cas lu mën a lu mën a am la lu war a am la hmm. que jigéen ñi nekk ay candidate est-ce que jàppoo nii ngeen lëlu woon am ñaar ba ñett yu dem si la seen chance ëpp que ku ne bàyyeeku rek ne day dem après voilà. moo kay l'union fait la force àndandoo bi. mais dafa mel ni yéen rek seen àndandoo bi waaw. moo gën lépp li kenn mën ñett moo ko ko gën a mën kon bokk àndandoo bi man moom laa gën a rafet. ndax am na ay initiative genre. Euh, Amsatou Sow Sidibé professeur dajeek ay Aminata Touré ay Aïssata Tall fii qui sait est-ce que yu mel noonu aussi baaxul ci fiñ ci tollu nii ngeen réfléchir am na initiative ah. baax na baax na baax ah. na baax na bon euh, baax na baax na mais mais bu leen xalaat nii hmm. pour jigéen ñi jigéen yu yi ñu ràññee rek ñoo fi nekk ah jigéen yaa ngi fii jigéen ñi ñoo ëpp ci population bi ñu ngi fii ñooñu bu leen leen négligé bu leen leen xeeb. genre maa ngi doon gis barki démb ku mel ni Anta Baba. mais oui y a de grandes dames y a des leaders y yoo xam ñu ngay bay ñu nga ca càmm ga ñu nga ca napp ga ñu ngi defar ay ay euh, art ñu ngi ci artisanat ah ñu ngi ci ñu ngi sax mécanicien. Hmm. mais jigéen yooyu bu leen leen xeeb dañu am solo ci mbir mi kon boog euh, dama yaakaar ni daal. Hmm. te tey tey tey Sénégal man dama koy méngale ak Nigéria. Nigéria. Euh, Libéria. Ah, Libéria Libéria dëkk Johnson Sirleaf. Hélène madame Hélène Johnson Sirleaf. xam nga Libéria dañ doon xeex. bu metti bañante bañante jamante paaka dëkk ba dafa tasoon tasar mais jigéen muy madam Hélène Johnson Sirleaf ma di ko rendre hommage moom lañ fa teg mu jël pousse ak wëñ ñëwaat ba dëkk ba nekkaat dëkk bu nit mën a nekk mën a développé mu ne ko fa ñukk dem bàyyi keneen. George mais donc. il est extrêmement important que léegi ñuy sóoraale jigéen ñi xam nga loolu suñu borom moo ko bëgg suñu borom moo moo ni jigéen magasin la ñu naan jigéen yaxu diggu ginnaaw la. Hmm. kon bokk wax dëgg yàlla ah ñu ngi fii jigéen yaa ngi fii. justement mais <laughs> percée boobu noonu ba yegg ba ci station suprême boobu noonu essayé ngeen ko essayé ko mais ba tey. li ñuy gis soo ko booleeg suñuy. dañu dañu essayantu ngëm-ngëm waay dañu ah. essayantu ah. dañu essayantu waaye bu ñu essayé. Hmm. ñu mel na Pape Ousmane jàpp ci. Hmm. ndax comprendre na ndax xam na lu baax xam na lu baaxul góor ñi jàpp ci suñu càmmin borom kër yi. Hmm. doom yu góor yi jàpp ci jeunesse bi jàpp ci yeneen famille jàpp ci mi day am. mais loolu. du question puukaree. oui. question bëggal sa dëkk lu baax la ndax jigéen bis bu ñu ko essayé. Hmm. defe naa ni dootuñu ko bàyyi de. ci réew mi waaw bu ñu ko essayé dootuñu ko bàyyi. nee naa nga jàpp ni bu nu essayé woon jigéen en deux vingt quatre mën nañu yóbbu suñu réew ci yeneen station yu ute gi ñuy dund nii. mais absolument Pape Ousmane côté yëpp. Mmh. D'abord, côté dal. Dal, la sécurité. Oui. C'est la base de tout. Président, côté... du forum investir au Mais Sénégal. absolument. Stabilité côté... et paix. Ah Côté yermandé. man bu may gis jeunesse bi di dem ci gaalu loo yi. di hmm. des ca géej ga. mais jigéen yépp seen rangoñ day tuuru loolu rek war na tax ñu ne yaay booy la ñuy indi ndax xale yi ba nga ci di dem ni ah ak euh, yeneen ak yeneen liggéey jigéen ñi sur le plan économique hmm. dañuy liggéey dañu ñaq ñoom ñooy jëkk génn seen kër quatre heures du matin di wuti nu ñuy def ba ba koom-koom bi yokk koom-koom bi yokk ci kër ga yokk ci dëkk bi di jaay di dem yeneen i dëkk di dem di di jënd di indi di jaayaat di tabax hmm. dañuy tabax jigéen ñi dañuy tabax euh, am nag un rôle extrêmement important oui. le plan de l'éducation de l'éducation xam nga traditionnellement hmm. dañu ne éducation wareefu jigéen la hmm. traditionnellement góor gi tamit mais jigéen ji surtout xam nga jigéen dafa jege doom hmm. donc rôle bu extrêmement important la am donc domaine yëpp wér-gu-yaram santé la santé oui. mais donc amul lu ma mënul laal rek loo environnement bi hmm. mais jigéen ñi jekk nañ ci ñoom waaw regroupé wu mbuusu plastique yi nga xam ne dafa fatt suuf si loolu jigéen ñi am na lu ñu ci mën a def lu rëy a rëy a rëy mm. ba pare jël